madame ngoom nee Ñaañi Guèye URV mouvement URV bu docteur Souleymane Bank euh, je suis responsable des femmes de l'URV isi au niveau de Thiès waaw 21 jours de campagne bi metti na mettiwul euh, parce que ñu ngi ko bokkoon ak sunu dañoo nekkoon allié avec la waa PASTEF wax dëgg yàlla yombalal nañu suñu liggéey vraiment muy mel ni dañoo jóge ci famille ñëw fekkaat fi beneen famille euh, def nañ ko ci harmonie ci jàmm salaam amuñu benn problème vraiment durant les vingt et jours amuñu ci benn problème. dalay permettre nag nga am connaissance connaissance yu bëri comme ni nga ko waxee mouvement amul doole mais daf ñu permettre ñu am connaissance connessance bu baax a baax a baax macha allah waa Pastef mm. yombalal nañ ñu daal suñu liggéey en tant que allié mm. vraiment. mais amul amuñu ci benn tension politique vraiment. vraiment politique def nañ campagne bi ci jàmm ak salaam. amuñu ci benn problème. man nag damay wax au niveau de Thiès. Mm-hmm. Thiès lañ nekkoon euh, particulièrement école euh, Cité Senghor ñu koy wax Demba Diakhaté vraiment ñuy fa woon de 7 heures à 21 heures. Mm-hmm. dañoo participer ci ci ci campagne ci euh, élection législative yi. foofu tam amul woon benn problème gars yi dañ doon circuler di voter di dem di ñëw mais tendance yi avant ñuy joxe résultat sax xamoon nañ ni Pastef dina am ndam ci Demba école Demba bi yëpp Pastef moo ko gagné. Euh, pour man ci sama philosophie programme bi nga xam ne jaay nañ ko waa Sénégal moo ñu may moo ñu may. Euh, euh, ñu am résultat yu baax yooyu. Mm-hmm. waaw programme bi vision cinquante avec perspective yi fi nekk yëpp wax dëgg yàlla ñu harmoniser affaire yi comme ni ma la wax sànq comme waa Pastef ni ñu accueillir dafa dem ba da vision 2050 dañoo ne au cœur de vision 2050 di développer vraiment euh, am na ci kenn ku ma daan tooñ sax ma cité boo ma ko mënee permettre Omar Mboup Euh, dafa parcouriser kii bi ba nga xam ni suy suy wax dama koy naw ci li muy wax ndax damay xam ni kii li muy wax ci xolom la ko tibbee kon bu dee moom moo koy interpréter noonu kon kii ko def vision bi xam naa dina mën a yàlla dinañ dimbali ba njort biñ ci am mu doon njort bu rafet yàlla réaliser lépp loo xam ne gis nañ. nag waa dañoo doon ay alliés nekk mouvement bu fresh buy doog a ñëw euh, am nañu expérience am na lu des euh, pour ñun dañuy euh, topp ci ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu pour ñu am mën a am expérience bi ñu am ñu mën a recueillir yeneen expérience yoo xam ne dañ koy boole donte docteur Souleymane Mbengue mu ngi woon PRP ci Déthié Fall am na expérience bu bëri ci politique parcourir parcourir parcourir na presque Sénégal gi yëpp. Euh, bi mu nekkee PRP kon kooku am na lu mu am ci lu mu xam ci politique suñu joxañee ne ñu dem jàppale le président Ousmane Sonko xëy na am na fu mu ko teg ba tax ñu dem jàppale président Ousmane Sonko. largement. largement waaw vraiment. Hmm. boobu motivation ah, dama amoon fierté nag euh, ne sama bureau de vote gañe naa ko ba gañewaale les les bureaux de vote euh, yi nekk ci Demba Diakhaté centre bi yëpp ñu gañe ko. Euh, maa doon recueillir PV yi amoon satisfaction bi ma koy recueillir euh, di ñaan yàlla ñu continuer noonu. te loolu nga nekk fenn amoo woon. Ah, si ba may nekk PRP maa doon recueillir euh, PV yi mais. am nga PRP président euh, président nu mu tudd euh, élection présidentielle yi ci lay doog a ber partem ndax moom muy mouvement yeewi la nekkoon boo xam ne président Ousmane Sonko muy fa woon déjà ñun xamoon nañu euh, am na amoon amoon nañ tendance di jël ay PV yoo xam ne satisfaisant na quoi mais bi ñuy nekkee présidentielle recueillir nañ yàlla dogal lii yàlla dogal comme docteur euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye la fi yàlla teg euh, mu doon président bu yaru au passage ma koy saluer euh, di ko ñaanal yàlla yen bi yàlla na woyof ndax yen bu diis la. 21 jours ngeen gagné élection yi nationale ngeen am 130 députés liggéey bi daal nag yooyu dina la foofu ba liggéey liggéey ba liggéey liggéey. bu baax incha allah. Mm-hmm. liggéey bi dinañ ko def. Euh, comme ni ko président Ousmane Sonko bëggee comme li ñuy wax rek euh, booy booy booy booy booy dem yi daje Kaaba ga doo jarul ngay sori euh, te président Ousmane Sonko lim ñu wan hmm? ñu ngi koy ñu ngi am reconnaissance boo xam ne mu ngi koy mu ngi koy mu motiver quoi. Ousmane pour ñu waaw foofu moom duma wax en tant que prés responsable des femmes du mouvement URV e que je damay wax euh, comme jeune jeunesse si jeunesse bi laay wax ndax euh, moom moo motiver jeunesse yi jeunesse bi ba ñu ko ba ñu bëgg impliqué wu ci politique instance de décision yoo gis yoo xam ni boo xoolee list Pastef député yi. aa euh, quatre vingt dix quatre vingt pour cent je peux dire que yëpp ay jeunes lañ la Ousmane Sonko jël kon am na fu mu teg jeunesse bi man pour man nit buy liggéey boole ci jeunesse bi et les femmes kooku bëgg na jëmalee réew mi kanam. man nag euh, comme ni nga ko waxee le vingt deux mille vingt et la Ousmane Sonko ne man naa wax ni man deux mille vingt deux laa laa intégré kon Ousmane Sonko laa fekk muy def euh, ay oeuvre am ma man cee teg sama bët. mais Oumou Sane nee nga jeune ñeent ci ñoom ñoo ñeent ñoom koy xar di ginnaaw. est que aussi aussi en tant que mu mu yee jeune yi ba jeune yi yeewu aussi la ma waxoon def ko est que indi par la ma euh, mu waxoon ak jeunes yi mu ngi koy def. ndax boo gisee ni ma la wax sànq liste Pastef fii député yi boo xoolee quatre-vingt pour cent yëpp ay jeunes lañ. Hmm. kon kooku mu ngi honoré kàddu yi mu waxoon ak jeunes yi. Hmm. vraiment mu ngi koy honoré xam nga rek euh, li waa loolu mënuñ ci daa daanu dajul suuf ni ko olof di waxee konte hmm. euh, ñu ngi doog a def à sept ou huit mois ci ci ci ci réew mi dama doon ñaan jeunes yi femmes yi surtout les sénégalais euh, ñu am patience may leen ñu dérouler euh, le meilleur viendra. incha allah moo ne bi dina ragal comme comptable bi nax boobu ngoow est-ce que man loolu teguma ko trahison ndax nit buy ñëw mbébétam rek la mën a waxee. li mu bëgg ci askanam rek la bëgg la mën a waxee bokkut ak réalité yi mu fiy fekk. Euh, du ma dugg ci détails yi ci réalité yi fi Macky Sall bàyyi euh, moom xëy na loolu lim li mu bébétoon ak li mu fi fekk moo dul benn mais nag euh, li ma leen di ñaan rek mooy ñu may ko tuuti temps konte commencé na développer dina baax incha allah. mooy jox leen majorité assemblée jox ko ba liggéey liggéey ak yeneen seen gàncax yi. waaw ko loolu damay sàcc tuuti ci maire Babacar Diop li muy wax. nit boo ko joxee oto faa nga baax jox ko essence bu muy dawalee euh, moo le maire Babacar Diop moo koy doon wax mais loolu dëgg la ndax nit boo ko joxee présidentielle te joxoo ko majorité assemblée du mën a doxal comme ni muy doxalee nit moom boo ko wóoloo ba jox ko président war nga ko mën a jox as euh, majorité assemblée nationale pour mu mën a dérouler. konte jox nañ ko nag majorité bi mu doon laaj ñu xool ba xam. fan la wànnante di mujjee ki gëtam. gagné mm-hmm. ngeen assemblée eh, gis ni seen kanam lii teg teg table lan la si ci campagne bi. mais yépp li ñuy teg ci table li ñu doon annoncé ci campagne bi moom lañ teg ci table moom lañ teg ci table moom lañ fëskee nee doxal euh, ma cité ci benn rek comme huit pôles yi ñu doon wax euh, ci campagne bi. Euh, bu ma boo déggee vision vision deux mille cinquante man dama de ma part personnel huit pôles yi moom mu ci gën a ne ndax nit lu ne lu mu moom nga jox ko ko loolu dafa day day bokk ci taarixu réew nit bañ a jéggaani dara li mu moom moom mu yoral ko boppam jeune am yi yoral ko boppam liggéeyal seen bopp waaw loolu laay. si bu doonee assemblée président assemblée ñoo xam ne mooy. président ak wala ak président ko le président. non président Diomaye ak euh, le premier ministre Macky euh, Ousmane Sonko ñoom gëw ma ni confrontation boobu dina ci am. même même su nekkoon président assemblée. Mm. mënul amul amul amul lu muy kii ndax comme ni ko Diomaye waxee euh, nee na bi mu toog. président Ousmane Sonko la séntu woon mu toog ci yàlla dogal ni mu dogalee ba tey bàyyiwul pour président Ousmane Sonko toog ci kon kooku pour man amuñu rupture boo xam ni dinañ mën a am problème vraiment. ban mm. léegi campagne ñu ko jafe nañ ko jafe. ah moom lañ bëgg a jafe de allah. campagne bi noo ko jàngatee jëm tendance bi noo ko jëlee. ah. mais noonu la pour man euh, campagne bi dañ koo def ndax dafa war a dafa war ci sama gis-gisu bopp sama opinion la dafa war pour ñu def ko mais man amoon naa yàqin ne majorité Pastef da koy am vraiment. mais am nga di liggéey. am dañuy liggéey incha allah non loolu du ci am xam nga lu tax du ci am dafa am benn communiqué bu ma lire bu ma neex parce que dama gis président Ousmane Sonko. mu ne euh, député Pastef yi dañu leen defal atelier atelier boo xam ne dalay wan lan mooy rôlu député ci assemblée nationale pas xuloo ak xeex parce que député bu fa tegoo dañuy xool assemblée fii Sénégal personnes yi fi ne yëpp nga choisir ci cent soixante cinq député ñu war a nekk assemblée national di wax ak ñi nga xam ne ñoo ne seen ginnaaw ñoo leen fa dëj kon amoon na fi amoon na fi mais changement lañu woote Mm, da ngeen ñuy may ñu jëfee changement boobu. Euh, di remercier sama président parti di ko wax ni euh, peccum luur bu neexee nday jaay jàpp ca mbagg ya wax dëgg yàlla confiance bi mu am ba léegi ñu seen responsabilité yàlla na yàlla oyofal lépp.